ba euh, pour def remise financement cent millions de francs fa euh, faamu 83 euh, village Touba yi loolu maa ngi rafetlu teewaayu sëñ Moustapha mi nga xamante ne mu ngi toog sama wet te y a de cela quelques mois huit mois ñëwoon naa fi si mairie Touba man ak moom tamit ñoo toog pour tàmbali liggéey boo xamante ne délégation bi defal nañ ko si région wu Diourbel et tey ñu ngi aussi gërëm di sant président Macky bi nga xamante ne moom moo mettre à disposition jeunesse ak jigéenu Sénégal yëpp 30 milliards de français CFA pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi si wàllum entrepreneuriat et maa ngi euh, rafetlu ni euh, région de Diourbel bénéficié wu na lu toll un milliard six cent cinquante millions de francs CFA bis ni que tey et lu toll un milliard deux cent cinquante millions yi dugg na déjà si kër yi jigéen ñi ak ndaw ñi jot nañ ko ñu ngi si liggéey. et boo jëlee euh, décomposition yooyu mun nañu wax ne département Mbacké ak taay population bi jot na lu toll presque un milliard de francs fa Diourbel am na lu toll deux cent euh, trois cent millions et Bambey am na lu toll deux cent cinquante millions boo jëlee loolu dolli nañ ci lu nga xamante ne mooy programme ASC un projet un ASC bi nga xamante ne waa ONCAV lañ ko defal di financement wu cinq cent millions de francs fa dugal nañu Touba lu toll trente millions de francs CFA. am na it programme renouvellement camion frigorifique yi boo jëlee loolu ci Touba am na si wàllam ndax jënd nañu ay camion frigorifique benn bu toll 36 euh, millions de francs CFA. enfin def nañu li nga xamante ne mooy comité d'investissement euh, bu région wu Diourbel ak gouverneur wu Diourbel il y a de cela deux mois et dugal nañu lu toll 471 millions de francs CFA si région wu Diourbel bi et Touba moo si ëppale lu toll 197 millions de francs CFA boo boolee enveloppe dugal nañu ak tey 100 millions tey fàttewoon naa ko donc ñu ngi si 1 milliard 700 millions de francs CFA nga xamante ne région de Diourbel bénéficié wu na si et moo nekk deuxième après région de Dakar département de Pikine donc loolu ne ni euh, euh, importance su euh, Touba ak Diourbel si politique économique bu ñuy def ak président Macky lu mu ñu sant ndax bu ñu fiy ñëw bu ma fiy ñëw si njëlbeen lu ma santoon mooy liggéeyal ñëpp jàppaleel ñëpp amul xaj ak seen. dëgg naa nit ñi ne Touba dafa difficile dafa métti waaye demal euh, doxal ak sa sago lu ñu la jox nga financé leen boobu bu ma fi ñëwee jour boobu sëriñ mun na ko euh, seede am na jigéenu PDS yu jógoon ne ñoom kenn du leen financé ndaxte PDS lañ bokk man leen jox la ma seen dossier te financé naa am na sax ñu ma attaqué ndax loolu waaye ñun lu ñu def dañ ci dëggoo te président lu mu ñu sant mooy ñu financé ñëpp amul xaj ak seen loolu lañ def maa ngi jeexal kàddu yi nag di remercier euh, sëñ Moustapha Diakhaté. Euh, mi nga xamante ne moom euh, mooy chef de cabinet euh, président Macky Sall moom moom moo waxoon projet bi pour jàppalee jigéen ñi moom moo si jàpp ak ku tudd Abdou Diaw bi nga xamante ne ñu liggéey ba préparer programme yi ndax financement du financement kese am na 50 millions yoo xam ne day ñëw pour incubation la ay atelier pour formation renforcement de capacité équipement pour jigéen ñi bu ñu jotee seen financement ñu dem foofu ñu liggéey et am nañ partenariat it ak 3FPT ak Dame euh, Dame Diop bi nga xamante ne waa Diourbel la dëkk dina ñu ñu financé dina leen former bu soobee yàlla euh, bu élection yi passé si jàmm ak salaam dinañ fi ñëwaat def formation yi te financement yi bu soobee yàlla dinañ ko kaat ndax président Macky Sall renouvelé na déjà 30 milliards yi jot nañ ko mu ngi suñu compte après élection yi dinañ génn waat waa Touba dinañ amaat seen wàll minimum dinañ ci amaat 1 milliard 500 millions de francs CFA. comme ni ko waxee euh, am na ñu ay euh, remontée d'information ni am na ay ñoo xamante ne am nañu ay difficultés ja jafe-jafe jot seen financement si banques yi CMS ak BNDE. bu ma waxee man mii bu ma fi pare naa dem léegi BND ak CMS euh, pour xool réalité bi lan la li ma mën a xam d'abord sama équipe lu ñu ma wax ak euh, li ma jot si banques yi mooy am na ñoo xamante ne dañu jot financement autonomisation cent mille ba cinq cent mille loolu amul benn problème bu ñu ñëwee ñu ngi jot seen xaalis parce que te kees na ñu toll un milliard deux cent ñoo xamante ne ñoo am ay quelque difficultés mooy dañuy déposer projet lii di si wàllum transformation produit agricole wala élevage wala aviculture wala sax mécanicien ak menuisier yi ñu jox leen cinq millions wala 6 millions wala 10 millions bu ñu bu ñu déposer si ñun lu ñu waxoon la ñuy def ñu jox ñu ay facture proforma ñu yónnee ko banque bi ñooñ bu ñu ñëwee foofu pour jot seen financement dañuy ne banque bi déedéet defatuñu lii dañuy changé wala joxuñu xaalis bi yëpp amuñu facture te loolu loolu mooy li ñuy wax si tubaab d' objectif xaw ma nu ko waxee si wolof. maanaam lu ñu la jox nga utiliser ko pour leneen lu dul loolu te loolu euh, képp ku ko def dañuy dagg sa financement moo tax ñu ne banque bi na bloqué na xaar d'abord ba nit ki lu mu waxoon lay def kii dafa ne aviculture lay def ñaata poussin la soxla ñaata abreuvoir lay jënd ñaata euh, euh, aliment lay jënd ñu jënd ko jox la ko ku buggul nga bàyyi ko foofu am na ñeneen ñu ko soxla bi ma ko commencé loolu laa ko man xam naa nañ ma posé question boobu barki démb laa jot dossier yi léegi ku technicien bu doon liggéey jigéen mun nga leen laaj question ñoom ñoo dem préparé seen dossier ndax 100 millions du xaalis bu tuuti euh, dañ leen ko jël jox leen ko mais balaa ñu leen ko jox dañuy déposer dañuy euh, formaliser dossier bi ba yëpp mu pare si la ñu bu ñu paree lañ ma ne euh, est-ce que mun nañ ko def man leen dama leen noonu sax après élection yi waaye dama ne du leen retardé ndax def nañ seen kii jot nañ seen financement génn xaalis banque si banque bi ma ñëw remettre leen. bu fekkee dañ doon politique duma fi ñëw ndax 100 millions dem fi ñëw ndax 1 milliard 700 te dugal nañ lu toll 30 milliards ci réew mi pour 183 000 bénéficiaires ñëpp dégg nañ ma fu nekk te bu soobee yàlla président Macky Sall du 100 millions moo koy tax a gagné élection yi président Macky Sall lu mu def ci réew mi ëpp na 10 000 milliards cinq dernières années yi Ila Touba ngi ne ak yeneen procès ak PDS ak Puma ñun lu ñu def lu tuuti la bu soobee yàlla euh, élection yaa ngi ñëw jàmm ak dina jeex dinañ fi ñëwaat bu soobee yàlla.